asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi premier juillet 2020 ñoo ak yëglekaay yi sunu làmb la ñuy xëy tey doore ko yëglekaay ba nag moom fa mu xëy ñëw tey fenn la Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass Balla Gaye numéro 2 la lion de Guédiawaye ñoom ñaar lañ ñu wan ku ca nekk nag yaa nga mel ni ki daal koo xam ne yaa ngay waaj a bëri sunu làmb nag nee na Gaston daal ramas di seekal ba moom boo bëggee dëgg-dëgg moom fisele na ko bokk loolu daal yëglekaay ba xëy tey ñëw wax nu ko mu mel ni ki nag staffu Balla Gaye numéro 2 moom confirmé nañu mbir ma maanaam daal seen kàddu moom joxe nañ ko nangu nañu booba combat mu mel ni kii nag booy Niang moom la mu bañ mooy cinquante cinq millions ko Gaston Mbengue jox daal loolu la bañ yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw ci moo tax Gaston Mbengue itam jàpp na ne booy ñang daal bu amee kuy ñàkk wala grand perdant du kenn ku dul ki nga xam ne nii moo di Boy Niang loolu waxi Gaston Mbengue la ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer ci boobu combat dañ cay des ndax ka nga xam ne mooy tëggal Balla gay numéro 2 di Adama Ngom xëy nañu laaj ko ci komba booy Niang ak Balla jaawo moom mi nga xam ne mooy tëgal Balla ne na boobu combat d'accorduma ci tey suba waxi noppi Adama ngoom moo wax loolu jàpp na ne Balla gay numéro 2 waa daa jaarul sax muy bëre ak booy Niang Adama ngoom moo ko wax du sama ay wax leneen loo xam ne Adama wax na ko nee na li am ba des Balla ba muy bëre ak Bombardier daal bés boobu nee na bi mu ñu wanee ginnaaw summeku jëm ca géew ba nee na kere moom maanaam xàmmewuñu Balla Gaye numéro 2 mañ daan andi muy bëre ak Balla Gaye 2 mi nga xam ne nii moom la ñu daan andi ak bokk mi nu gis tey Iba wala ki nga xam ne moo di Adama Ngom moo wax jooju wax keneen koo xam ne nii moom Pikine la dëkk di Ama Baldé mu mel ni ki moom daal soo bëggee dégg-dégg daa mel ni day dañuy laajte ndax moom mbaa jàppuñu ko otaas ndax ndax nag digganteem ak Modou Lo Ama encaissé na ñaar fukki millions ak juróom yëgle kay baa xëy tey wax nu ko te Modou Lo moom encaissé wul wala boog xaatimul dara moo tax yëgle kay bi xëy tey samp boobu laaj mbay Guèye moom tamit ñëw na ci benn combat boo xam ne daal coow la fi mu nekk nii ci dëkk bi muy diggante Tapha Tine ak. ka nga xam ne nii moo di rëg-rëg yëglikaay bi ñëw na ca leneen loo xam ne nii sunu làmb xëy na tey ñëw ci ba tey ci gëstu bu ba Niang maanaam daal jàpp na ne ñi nga xam ne nii wala état bi nga xam ne nii moom mooy état d'urgence ñuy wax ne na fi nga xam ne nii ak couvre-feu bi daal daa mel ni làmb ja ba tey moom ñu nga cay continuer di leen confiner ak di leen teg wàllum état d'urgence maanaam daal ñoom bokk guñ ci ñi nga xam ne nii ñoo ci géew bi war a defante yëglikaay baa xëy tey ñëw wax nu ko dama fay jóge toxu dem ba record record moom itam xëy na ñëwati ci diggante ba Balla ak Boy Niang wala boog diggante Gris ak ka nga xam ne moo di Balla bu fekkente ne waa Fass la moom li am ba des daal ca waxi ka nga xam ne moo di Khalifa Dia ma nga xam moom mooy mën a seeru ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux daal ne na fi mu nekk nii waa Kër Balla ñoom xam naa déggoo nañu ak Gaston Mbengue waaye ñoom daal fii ci Fass moom daa mel ni moom mbir ya des na faa officiel wala mu des faa leer yëglikaay ba moo xëy wax nu ko moom record Boy Niang moom record tamit mu ngi ñuy xamal ne daal moom juróom-ñett fukki million daal moom lay laaj ka nga xam ne moo di ki nag mbir mooma ngir combat ba am ki nga xam ne moo di Tafa Gueye jël nañ ko dugal ko ca mbir ya mbir yi mbir ya boog gën a mën a gaaw a am leneen loo xam ne nii wala beneen combat boo xam ne nii daal mu ngi ci yëglikaay bi ñu di ci wax fan yii yëpp muy diggante rëg-rëg ak Sa Thiès Mame di ab entraîneur moom ca parcelle mbooloo la mu xamle daal nee na rëg-rëg ak saa Thiès lamb mënu koo dàq dañ fay jóge ba tey des ci yëgle kaay bi waaye fa nuy dem moom mooy ca lamb ju àndul ak dóor ji ki fi nekkoon international di Malal Ndiaye ñu xam ko ci lit avec frappe waaye tamit bëri bu àndul ak dóor mu daan ci coone boppam mu ngay wax ci yëglikaay bi di record la nga xam ne ni daal moo ko neexul ci doxalinu CNC ak yu mel ni ki noonu mu mel ni ki daal malal loolu la xëy tey di ko wax mu mel ni ki yàgg maar ku mu neex ku ne boo nekkee ci mbir boo ca gisee lu la neexul am nga droit réclamer ko wax ko waaye loo cay def wala nga koy wax na ànd ak ko yar ak i teggin ndax nag yar teggin ak sutura ak orma kenn du ko booleeg nit toroxal du mas am. salaamaaleykum mbokki yi sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni koy defee chaque jour dañu ànd ak yéen ci li nga xam ne ni moo gën a fës yéen kaay eh, ci jàngat bi ànd ceeg Babacar ginnaaw bi mu defee li nga xam ne mooy revue de presse bi Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Aïssa ah, di la ziar di la ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers le monde rek TV fu ñu mën a nekk ñu ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm daal dugg ci li nga xam ne nii mooy eh, waxtaan bi ñëw ak tey suñu lamb lu ñu andi la eh, muy revanche gri Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye 2 mu ne nag euh, Gaston daal dinay décroché li nga xam ne nii fan yëpp euh, ñu ngi koy wax mais nag Gaston tamit yamu ci loolu ñëw na ci affaire yi négociation yi nu mu demee ak Boy Niang li mu ko laaj ak li nga xam ne nii foofu la mujjee muy perte li nga xam ne mooy Balla Gaye 2 waaw mu mel ni ki daal moom moo xëy tey di waxal boppam ginnaaw bi yëgle kay ba xam ne décroché na combat ba muy Gris ak Balla moom Gaston nag Ah, wax na ci staff bi nga xam ne ci maanaam digganteem ak Boy Niang li tax mu perte combat bi ci 80 millions yu mu ko laaj te mu jàpp ne moom xay na cinquante cinq millions la ko waroon mën a jox ak yu mel ni ki noonu mu jàpp sax ne moom Boy Niang moom mooy grand perdant wu combat bi moom Gaston loolu la gis li ci am nag mooy que ni rek làmb yàgg na ci loolu xam nga promoteur dina ñëw bëgg benn komba te xay na du déggoo ak mbër yi ci wàllum xaalis ak lu mu leen war a fay ak yooyu defe naa loolu moo feeñ fii ah dem na xëy na ut na beneen adversaire pour Balla Gaye numéro 2 muy Gris Bordeaux comme moom ni mu ko waxee déggoo na ak ñoom ba daaxaar na daal te itam lamb revanche dasee bokk ndax diggante Gris ak Balla ak lu la waaye mën a wax moom seen combat bu njëkk ku ne xam na ne kera mm, fa nga xam ne ni moom mooy Léopold Senghor ku fa ñëw kera wala nga seetaan image yi li xam ne na mel ci bésu boobu ci lamb c'est la première fois mu yi nga xam ne ay mbëri gox lañu ay mbër yu am ginnaaw lañu kon defe naa tey boo indi seen combat te giri ba tey mu ngi wax naan combat ba dafa leeru rek jàppal bàyyi ak lool yaa ngi dégg te doon te nag waaye la fa am mooy Balla moom moo gañee kon yaakaar naa daal bu bii yoon moom xalaat naa kon dana leer naññ. waaw ba tey dañuy des ci li nga xam ne ni mooy combat bi parce que Gaston ñoo na ci sunu lamb expliqué ba wax ni jox na mbiri ay avance ak yëpp mais nag euh, ñu dem euh, ci record fekk fekk ki nga xam ne ni mooy manageru Gris Bordeaux muy moom nag nee na amul dara lu officiel pour l'instant dañoo joxe seen i accord rek mais y a encore rien d'officiel waaw accord day moom defe naa ne moom boo ko joxee bu dee yow joxe nga sa kàddu accord bu ñu ko déggee xam nga des fois dañuy jël baatu tubaab bu ñu nee accord ñu def ko lu gàtt parce que français lañ ko wax mais mooy kàddu maanaam baat ma wax ak yow ne la suba dinañ def nangam nga ne ma waaw ma ne la waaw defe naa tamit ba àddina àddina ci loolu mag ñi boog noonu lañ daan ànd ñoom bu ñu la suba la ñuy dee ba wax la ko nangoon te ko ak yow bu subaa moom booyee ba wuti càngaay yaa ngi dégg kon defe naa xalifa ja bu ne ñoom joxe nañu seen kàddu mais dara officiel agul loolu dina ma xaw a jaaxal ku joxe sa kàddu moom pour man c'est officiel parce que kàddu googu nga ne waaw mooy tax ñu lay jox lañ la war a jox waaye xëy na kon la des kay xanaa kon mooy xaalis bu war a dugg te duggagul waaye bu kàddu xasee am moom pour man la ca des moom kii na quoi wéy na ba bay wéy na mbuus waaw ñu des ba tey ci record record yi ñu xamal ni Boy Niang li tax euh, combat bi jotul antu ci côté maanaam 80 millions la doon laaj pour bëre ki nga xam ne ni mooy doomu ba doomu Double Less. waaw loolu de am na si droit mbër mu nekk moom am nga droit ne kat nañ ma fay kase bii moom laa mën a bëree ak diw parce que moom may arrangé mu bëree moom Boy Niang loolu mu laaj ne am na si droit waaye nag it du tere kay tëgg moom dana xool la nga xam ne moom la man ak la mu jàpp ne su la ko joxee moom dina si génn mu mën la ko jox xëy na Gaston Mbengue la ko Boy Niang laaj moo ko arrangé wul moo tax mu uti beneen solution mhm. ba tey ñu des euh, ñu daal di jóge ci record dem fële ca sunu lam fekk fa Ama Baldé bakkan ñëw tey samp laaj ndax euh, Ama jàpp ñu ko otage parce que dañoo taxawal combat bi jox ko li nga xam ne mooy ni njëg bi nga xam ne mooy 25 millions mais ci diggante bi li na ci prison ak yeneen yu mel noonu te ki nga xam ne mooy adversaire am di Modou nag moom mun nañ ne dara liyeew ko maanaam jotul xaalis bu kenn ëllëg si biir mun na dem di bëree keneen waaw loolu day maanaam dina nekk mbir mi xam ne gàllankoor lañ ko mën a tudde ci Ama Baldé comme nañu ko Iba Kane waxee parce que tey bu fekkente ne encaissé na 25 millions ba pare te yàlla dogal ki tëggoon ki ko joxoon xaalis boobu tey yoon topp eh, eh, teg ko si benn place muy Luc Nicolaï ñu koy ñaanal encore une fois fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla génne ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku fa nekk te yeyoo ko defe naa kon ama itam côté boobu dina xaw a am lu mu ko téye ndax boo xasee jël avance boom bu toll noonu defe naa ne mënoo xëy xëy rek ne da nga cey génne noonu dina jafe kay côté boobu xëy na Modou Lo gën na ko ci avantage moom mi nga xam ne kon comme ni ko Iba Kane waxee maanaam encaissé wul te itam xaatimul bu dee loolu am na moom Modou mooy gën a nekk moom mooy gën a feex maanaam tey dina ko bu ko neexee mën na engagé yowaat ci beneen combat waaw ñu des ba tey ci combat yi ak euh, Reug Reug ay adversaire Reug Reug la ñuy coow euh, fan yi yëpp tey euh, ki nga xam ne ni mooy Mbaye di premier tigre de Fass moom nag ñëw na nee na kenn koo xam ne ku dul Tapha mais tam boo demee ci record da nga fay fekk ba tey maam maam lees di coach fële ca parcelle mbooloo maam lees tam ñëw na ci adversaire Reug Reug mais moom Sa Thiès la tànn waaw mu mel ni kon mbir yi maanaam ku ne sa xalaat ngay joxe rek parce que àddina tëddee noonu Mbaye Guèye moom jàpp na ne adversaire Reug Reug Tapha Tine la Mame Less jàpp ne adversaire Reug Reug Sa Thiès la mel ni kon daal Reug Reug ak lu ci mën a xew jàppal ne kon yegsi na ci seen kaw parce que li tax mooy bu kii ne mbay Tapha kii ne Sa Thiès loolu la war ne kon Reug itam mu ngi ci biir loo ci mën a dégg nag ñaar ñooñu ñëpp ku mu ci mën a am ci ñoom ñaar pour man bëre lay doon combat lay doon làmb ju neex a neex lay doon waaye daal la may wax rek mooy que ni bu mu fixé ci adversaire bu nga xam ne ni wóor na ko ne da ci bu ca toppee itam du ñu bëre ba mu nar ko tardel na utiwaat bu fekkente ne gis na beneen solution na ko dem jëli bëre ndax mbër yi bëri nañ te rëg-rëg bëri nañu mën a bëreel ci làmb ji tamit quoi waaw dañuy dem euh, jeexal ak ki nga xam ne ni mooy euh, Sélémélé di koo xam ne nag euh, di nekkoon équipe nationale nekk ci lutte simple beeg avec frappe bi moom nag ñëw na ci li xam ne ni moo ko naqari waa Sélémélé kon de man maa ngi jéggulu parce que moom naa tey mooy loolu quoi man Malal Ndiaye sax laa fa maye man mais Sélémélé la Mamadou Moustapha Sène borom campement Ngexoox ñu koy nuyu di nuyu waa campement moom la ko naqari ci CNC bi lay wax ak yu mel ni ki noonu moom ku ne xam na ne jaar na équipe nationale def na fa lu bare bare bari muy mbër bu nga xam ne ku mën a bëri ku saf xorom macha allah mu mekk mu mel ne ki nag mbir moom boo ci bokkee comme li ma wax la sànq la rek wax ci la la ne ak la ca naqari parce que àddina moo tëdd noonu lépp parfaitul kon la parfaitul am nañ droit réclamer ko mais rek ci kaw ko ci ñu ko gën a mën a dégg mànda ki teggin da ci am solo Sélé nag nekk na xale boo xam ne daal macha allah ku yaru daal. ci loolu la ñuy daal di tàggoo ñi nga xam ne mooy internet yi suivre Leewtoo TV di leen la jàmm di leen ziar bu baax di leen ñaanal tawféex di ñaan yàlla musal ñu ci corona di daal di ko fii jële nu mu gën a gaawee ba ku nekk dellu see activité parce que tijji nañ peut-être yenn yi aw mesures yu bëri wàññi na mais ba tey des na ba moo tax ba tey lamb ubbeegul ñi ñaan rek ku nekk gën a farlu fa nga nekk. waaw loolu am na solo parce que yaakaar naa ne fi mu nekk nii moom olof ne ne sama boppam la gënal du bañ naa la yaa ngi dégg te yenu jàpp ca daa gën a wóor parce que nee nañ mag du dangamtalu am na yi nga xam ne du jar sax ñu toog naa nit ki pour man moytu ko wala naa defe naa wàllum cet ak aar sa bopp ci lépp lu nga xam ne lu lay lor la defe naa ku ne war nga ci mën a nekkal sa bopp dafa fekk na nag àddina moo tëddee yàlla mooy indi dogalam corona ñëw na yàlla na fi jógee jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam bañ koy nettali ñi ci faatu yàlla leen yàlla leen ko ñaanal daal jàmm ah, jàmm jàmm jàmm di ko ñaan ci àddina bi yépp waaye tamit di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Petersen encore une fois du ma leen mës a fàtte yàlla na seen jàmm yàgg ak waa marché asalem waa marché Tilène tamit maa ngi leen di nuyu di nuyu bépp marché bu nekk ci Sénégal marché Njaareem ak marché ca Géejawaay ak fu waay nekk di ñu bëggee rek yàlla na la yàlla defal jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi